Sonko. kermassar kermassar rafetna baxna rafetna baxna ñaar yoll laa la ko wax. ok mais dafa am lo xamantene luy ram lo xamantene baxul suñu si ñun. banlieue bi. ñun la de ñun banlieue bi. ubbil palanteer bi nga xol balcon bi péage bi ngay jaxaro péage mo moo ni man sama kër église bi kessa mo dox sama digënde ak péage mais Covid bi bamu ñëwé ñëwee li fi amone sa waay demoon. man fii dama doon wàcc lu ne laay jànkuwanteel fii booy nekk fii. dama leen di tere hee daf leen di coow li parce que coow li bu amee ñi yàq ñoo ëpp kañ ñuy def dafa am ñoo xam ne dañuy toggaalee nit. dañuy gis si péage bi ku jël oto jàmbur. baare télé bi nii mu def nii. lu ko tàmbalee fii ba fële. kenn du dem te waaye gis nga sa waaye man maay wàcc fii topp booy mais booy ngay topp yëpp amul booy boo ciy xam doo ci xam ma demb doo ci xam ma paate. léegi ñan la ñuy wax ñun banlieue mm-hmm. ñun banlieue bi la ñuy wax mm-hmm. léegi xoolal li yàqu fii nii côté bii autoroute bi mm-hmm. sama xarit yi ay ñoom abu ñaasi ñoom ñëpp dama leen di ñaan intervention ne leen dem leen foofu mais ku mel ni dembaka dembaka dembaka bu dul woon man man EDK dañ koy dajji loolu am parce que Gris Bordeaux moom may dégg du ma bàyyi ma fen moom lañ fa yóbboon pour mu jàppale ko mais Gris Bordeaux dafa mujjee xaar di daw bàyyi dafa ma woo téléphone ni ma Siteu fii sa zone la dama bëgg nga ñëw jàpp si du ma ko fàtte mu benn rax Demba Ka moom lañ ma booleel mu ne ma grand bi dafa bëgg nga jàpp si du ma ko fàtte mukk jour boobu ma ne ko grand bu ne ma naam ma ne ko lu ma ci mën dinaa ko def zone bi ñi fi nekk ñëpp ma xam leen dama leen gis wax ak ñoom jour boobu xam nga ñaan la yëkkati jox ma ko hmm. ko fàtte mukk xaw ma six cent mille xaw ma ma ko noonu laa ko joxee booy ci lendemain bi mu woo ma mun ma booy gisuma fii ay booy de ma ne ko grand mun a naa ma ko lenn de xamal naa ko ma ne ko fii benn booy du fa ñëw parce que loolu da sama responsabilité la mm. mais nit du fa garre nit du fa taxaw mm-hmm. su ma ko waxee loolu parce que gisu kenn ko fa garre mm-hmm. mais pour moom man ne ko suba si mu dema mais xaalis bi la joxoon ma ko ni nga ma ko joxee noonu laa ko joxee booy yooyu mm. pour wala ñooñ ci def ñaawteef yëpp dañoo amul dara mm-hmm. parce que tey boo fekkee ne da nga yeewu sa yaay bi la jur sa yaay bi la jur di ñaxtu ne junni laa bëgg faadal te yow amoo foo ko jëlee mais Fadel bu amul xel dem dafi ñaaw def loolu nag il est temps mu dagg nan lay daggee mooy dañuy jàppale hmm. créer ñu ay entreprise ñu liggéey dimbali ñu suñu jeunes yi fii da ngay gis ay xale yoo xam ne dañuy jàng ba am diplôme mais quelque temps fii lañ leen di fekk ramasse la si kooñ bi nga ñaaw rek mel ni booy bi rek ñu jël la yóbbu la kaso non sérieux yaa dégg te yàlla xam na ne li nekk ci yow xamuñu ko yaa ngi dégg may wax président Macky Sall yaa ma lay waxal di koy wax ne ñun suñ dëkk bi ñun lu dul jàmm bëgguñu ko ñun jàmm lañ bëgg mais affaire Sonko bi mais na ko baal na ko baal ngir ñun ndax parce que tey lu am ñun dañuy sonn bitig bii nii ñu jàkkaarloo li ma fi jënd ci moom si ay ceeb mënu ma la wax nu mu toll mais bi ma jeexalee li ma ko leb war na mat ay huit cent mille jëm kaw te loolu yëpp ci ay doomu aadama dugalu ma ko sama kër te loolu Covid moo tax mu am kon tey ñun lii di raam nii lii di raam nii di ñëw su dalee suñu kaw sa waaye c'est la même chose ñuy dund ci ñoom du ñu xam coono yi ñuy dund te ñun dañuy sonn di ñaan Sonko lu muy def wala lu muy wax baax na kenn waxu ko ne baaxul mais bu ci boole coow ñun xeexuñu xuloowuñu dégg nga te man gis nga jàmm gën gi ma dëkk mm. lu ko tàmbalee fas mbaaw ba Sibs man sama responsabilité dama koy jël mm. fii ku fii xeex wala nga ci xuloo loolu dama ci reyanteeg yow bañu ma si dara man Siteu parce que tey bu méttee sama kaw lay njëkk a métti dégg ma ma bëgg nag képp koo xamante ni ak gox boo mën a nekk nga jël say responsabilité faral ku la neex faralal ku la neex mais ñun xeexuñu xuloowuñu parce que bu ñu xeexee xuloo suñu yaay la ñuy gaañ suñu tante yi la ñuy gaañ homme te tenue yi ñun suñu biir kër yi la ñuy dëkk kon il est temps loolu mu jeex nañ politique ñun d'accord nañ politique mais ñun duñu ay politiciens te ñoom bu ñuy xeex ñun la ñuy xeexloo mais tey su ma waxee faada bi wax ñu ne la la faral man faraluma kenn man population bi laa fi nekkal dégg ma mhm. man doomu banlieue laa xam li banlieue di dund ñu am suñuy xarit yoo xam ne dañuy dem usine sax pour ñu liggéey pour ñu liggéey wallaay dañuy tax dang dangi ba sonn bu ñu demee ku ci gaañu nañ la nax ba nga faju boo fajoo ñu dàq la mais boo liggéey ay 2500 lañ lay fay 2500 da nga ci mën a paas añ dañ ciy mën a añ. dañ ciy mën a joxe dépasse. yow kañ ngay réussir ah. te yow léegi yaw yaa ngi rêvé benn cité boo xam ne yaa ngi koy gis mu toog ni yaakaar dafa yor lu jë ni moom mm-hmm. mais da ngay tax nga doxee noo xam ne waroo ko doxee wala ngay daw xam ne waroo ko daw nañ dimbalante man loolu laay wax président bu dee moom lii mën na si teg tànkam mu teg si tànkam suñu kilifa diine yi mais mu jàppale ñu ñoom tamit ñu wax yaa ngi dégg parce que tey boo xoolee valeur bu ñu amoon sa amatuñ te boo xoolee ay xale yu ndaw may gis ñuy dépassé suñu kilifa diine yi. Mhm. pour lan te ñun ñu joxe suñu jéebal mais àddunaa ak laayra loolu wax ñu def loolu ñu digal ñu def mhm. loolu ñu tere ñu bàyyi. Mhm. fii ku jébalu sa bopp sëriñ boo feebaree boo demee hôpital jébal sa bopp médecin. lu mu la wax nga def ko. bu la nee su ma sa tubéen ma piqûre la nga def ko. mais kon tey ñun lu tax war ñu delluwaat suñu xel. jàppalante tey banlieue bi fii. banlieue bi ndaw yi nga fii gis yëpp ñuy dëgër bopp amul ndaw bu ma sañ a wax ne ñemewuma laa jël yóbbu la si àll bi. pour nga dem bayi ji mais nañu may ay doon ñu jël boy nga xamé amuñu métier ñu yobul leen ci àll bi ñu dem bayi man gëm gëm boobu laa am ñun foofu lañ tollu ñoom loolu lañu war a politiquer ak ñun bu suba ñu mën a am fier jël suñu carte yi dem xool leen voter leen mais pas ay dem leen ngeen rayante gaan ñu rayante wuñu ñu loolu tawul suñu yaram te ñoom seen i doom duñu xeex de man rayante wu ma de rayante wu ma de te jàmm gën fii warul Rasulullaay ku ko bëgg a taal dinaa jot ak yow waaw ma bëgg nag képp koo xamee porteur de voix nga nga jël responsabilité koñ bi nga dëkk xam ne loo nekk wala loo doon mbooloo bi nekk sa ginnaaw dëgg sa koñ ñoo la ko def ñoo la ko may te bu méttee na gaan ñi tëju seen biir kër day bari de kon nañu am gëm-gëm ñun am gëm-gëm suñu bopp xam ne liggéey rek moo ñuy may leneen du ñu may suñu àdduna lu dul liggéey man côté boobu laay waxee lii nag dama waxoon dama koy wax bu dee wax naa si loo xamante ne. lu ñaaw la maa ngi jégalu. ñëpp la fenn. maa ngi dégg bu ma si waxee loo xam ne lu man la xamal ne ñun ñëpp la. Mm-hmm. waaw loolu la am loo xamante ne tënk naa ko wax ko. Mm-hmm. su ñu amee leneen loo xam yi nga xam ne dafa jotoon a am. sa ginnaaw. waaw di leen masawu rek sa waay. Mm-hmm. àdduna la àdduna buy waaj a jeex. lu ne mooy ñëw boo amul gëm-gëm amoo sañ-sañ sa bopp yow da xaddi sax nañu am gëm-gëm booloo xam ne lu ñëw yàlla la lu ñu dal tey ñu éviter ko. suba mu bañu dal man gëm-gëm boobu laa ci am waaw. ayca ayca ñëw leen ci question yi si laa na lool. Mhm. parce que tamit yaakaar naa ne. Mhm. comme ñun ñëpp si yem. bu fekkee ne danga xëy gis maire bi comme ni mu ko waxee rek muy jànkonte ak yenn yi te amoo métier doo bëgg lu dul dem rey doomu jàmbur wala agressé doomu jàmbur jël li mu moom yaakaar naa ne côté boobu tamit. ci discours yi muy def ñu ngi ko ciy jaajëfalaat bu baax a baax a baax parce que des fois mm. comme li may wax chaque jour rek comme man mi nga xam ne dama teel a ñàkk papa xaw ma lu dul ñaar day doy waar mais damay ñëw ci côté làmb <coughs> dañu gis ñu bëri nee nañ Siteu day topp social yi day topp malade yi day topp ñu yorul dara